ku Sakayel fay na dox na ci koom waaw Sakayel dox na ci koom Arsenal riposté waaye dara amagul demee nañu wet Sakayel ak Arsenal ndeysaan koronte nañu ñoom ñaar Sakayel ak Arsenal ñu ngi damante baaraam. taggante bopp jël na ko mu tëgg ko nooñu mais daa yegg si wul da ngay bàyyi ba mu soobu ndeysaan Sakayel ak Arsenal ndeysaan cay arbitre bi moom ci kanam caméra yi rek la yow. Arsenal sentiré ko takk ko mu ngi koy jéem bi mu bañ. lonk na ko caxabal mu jéggi. ma ngay tëgg mboot Arsenal ah nañ laaj lu xew nañ laaj lu xew lan moo xew lan moo xew lan moo xew lan moo xew Arsenal daan na ko saa kayel kenn du mbootee noonu daa jiitu Arsenal Arsenal daan na ko saa kayel kenn du mbootee noonu ngi mi ngi wër Moussa Boy Niang tiré ku topp ko ndeysaan doomu Mbàkke ak Moussa Boy Niang gëdd na ko sànni ko crochet droite mu replier dalul daw rasu taru na ko daw na wër ko ndomba daan na ko Moussa Boy Niang daan na doomu Mbàkke da koo tëru muy tourné daan na ko jël. Sénégal bu baax Sénégal xam nga maa da woo da maa woo ne ma Siré nga Thiès ma ne la Siré Sénégal naa gars di ko wax nag loolu sama wax la dégg nga waaw di ko nuyu di nuyu jabaram fama fama sama sama papa ak sama yaay ju baax ak noonu. ah ma ne ko maa moom te dañ escalier bi la daa waa ne waaw escalier yëpp jeex nañ moom daan man ma daan samay moroom léegi benn ñoo war a leer moo tax man la benn buntu la te waaw. di nee na caabi moo ko yor. waaw na ko soxla am sa jë caabi buntu bi fëkk. bu ubbiwul. jëlul ibbi maa ibbi sama bopp. loo fa fekk. buntu fëkk. loo fa fekk. ma Sa Thiès ak Boy Niang ñi ngi sama ginnaaw ñi ngi xaatim seen contrat ñoom ñaar arbitre sifflé na ñi ngi lay atoo ñoom ñaar Alizé ak Super Étoile Super Étoile nga ko sëkkatal ak Étoile gëdd na ko mu daw jël ko mbaar na ko tënk na ko doog moom dëkkëf na ko doog moom mu rasu téye na ko ñi ngi téyante téyante nañu ñoom ñaar téyante nañu téyante nañu Alioune Seye nañu bëtt na ko faax na ko mu rëpp daan ko daan na ko combat bu neex combat bu riche combat bu ñaari jàmbaar Forza ngand la Abdou Diouf ngand dana métti trop man nag ragal naa ni Forza di combat Eumeu Sène ak Bombardier euh, bi moom wala daj daj dëpp gi la moom. Bombardier ak Eumeu Sène moom combat mënu ko dàq ndax Eumeu bu garaaw la bu ñeme bu mën a xeex Bombardier it moom man dama ragal ndax dafa lu ma neewoon na am na ñetti. waaw waaw comme d'habitude waaw man bawol bawol laa moo tax même bu may invité dama waroon na ñëw. bu ko musee am aussi xëy na géej na fi mu nekk loo xam ne lu ñu rafetlu la parce que Diourbel aussi souvent dañ koy délaissé si affaire yu bari donc Pape Thialy bi nga xam ni moo am initiative bi ñëw indi fi lamb ji. vraiment ñu ngi koy remercier di ko encourager parce que dafay tax ñu mun a wone aussi talent yi nga xam ni Diourbel am na ko si wàllu làmb talent yi nga xam ne aussi Diourbel am na ko si wàllu organisation parce que plus organisation bi di nga xam ni li ñuy def Dakar ak yeneen région yi wutewul dara ak li am Diourbel donc c'est vraiment un très grand plaisir ak aussi un très grand honneur pour ñun ñu bokk si parrain yi nga xam ne ñoom ñoo parrainé tey ji làmb ji mën nañ ni Sénégal euh, Diourbel moom mooy capitalu Sénégal tey si wàllu sport parce que ñëpp ñu ngi fii toutes les télévisions ñu ngi fii donc dafa nekk loo xam ni dina jox aussi exemple mbër yu ndaw yi nekk Diourbel pour que ñoom aussi ñu mun a jël exemple si mbër yu mag yi kon boog vraiment ñu ngi koy rafetlu mu nekk loo xam ne vraiment lu am solo la pour Diourbel suma kàddu gu mujj mooy vraiment di sant yàlla di ñaan yu mel ni mu bañ fi géej parce que aussi dafa bokk si développement wu dëkk leen di gën Sénégal gi yëpp. tey lan ngay xaar tey Bombardier ak ni mu dikkee si diwaanu Ndiarème euh, mu fi daan am ay ay yoo xamante ne am na ko comme Tapha Tine daal di koy ñàkkoon euh, est moom nekk na euh, si xalaat si Ndiarème lu ko jik ah ñaan yàlla may ñu ndam rek lamb la. est-ce bi. xam loolu yàlla suñu borom moo xam mais ñu ngi koy ñaan te gëm nañu incha allah rabbi dinañ ko jël bu soob yàlla. ama ama bombardier si kàttanu yàlla buy ñëw da koy indi mais bi dem di ko yóbbu incha allah. bombardier nee na dalay door ga loo ko mu ne. bombardier nee na dalay door ga daan looy tontu loolu. <laughs> mu ngi fooyee xelam day yàlla baax na. Bamba daal mbër la quoi. Njaareem làmb Njaareem tey moom neex na wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant di leen gërëm waaw. nan nga gisee li nga xamante ne mooy làmb ji. waaw sant yàlla bu baax di kontaan nañ loolu ndax wax dëgg yàlla Njaareem tey Njaareem am na ca tey Njaareem neex na te Njaareem na mais ki yëkkati initiative bi rek ko Njaareem gi ñun ñëpp la ko defal. waaw Abou Seye Bombardier ñoom ñaar ñëpp mbër lañ waaye nag ki ci yàlla jox ndam rek nga xam ne am nga ndam. waaw moom li ñu ci gis mooy kontaan xam ne tey jii njaareem tey jii mooy capitalu làmb Sénégal parce que mbër yu mag yëpp ñëw nañu boo ci ay Moustapha Guèye Bombardier ñëpp ñëw loolu yombutoon kon tey su ma nekkee maire Diourbel tey jii waa Leewtoo indi ko Pape Thialis indi ko dama koy gërëm di ko sant te tey na mën ne man laajuma la dara kon tey jii loolu kon bëgg dëkkam ak bëgg événement dëkkam ak indi xumbaay bu mel ni tey loolu fi jafe kon tey jii kontaan ak fierté la ñu am vraiment di ñaan yàlla aussi promoteur yëpp ñu parce que Diourbel ay amateur la bëgg nañ lii lii tey ñu stade bi feesee rek moo lay wan wax dëgg neex yaa war nañ fi ne lam ndax njaari Sénégal ci jaarum bokk te vraiment di kontaan baax ci Thalès ak organisation bu rëy bii mu def xam ne bëgg dëggëm ak xam ne njaarim ci boppam ci la moo tax mu def ko ndax bu moo tax ko fi def waaye lu mu nekk doomu njaarim ak lu mu am njaarim moo tax tey mu def ko. waaw. Forza Ngosaka Dalabi Diouf sànni na ñi ngi xeex. daw na di ko plaqué Abdou Diouf bañ na fàq na ko ñi ngi xeex door na ko Iberkil ñi ngi xeex door na ko mu wàcc Abdou Diouf takk na ko Abdou Diouf forsa nga koy door ñi ngi xeex ñi ngi xeex daw na jël ko ñi ngi xeex ñi ngi xeex forsa nga ko sakkatal forsa nga ko sakkatal jàppante nañu forsa daan na daan na ko forsa daan na ko mayu ko dara daa dox ci koom door ko ku yu bëri ëñ ko plaqué ko a forsa daan na ko jël bu rëy eh lu ma waxoon dama koy def la dagay dëgg na ñoo ñu bëri pare naa yow la tàkk gaynde na mën a 2S 2S la lañ am na mën a 2S TV vraiment li ngeen di wan ci làmb promoteur bu ne jaar na ci yéen bu bu bu jógee ci yéen delluwaat ci yéen ndax vraiment image yi ngeen di wane 2STV dara du moromam. maa ngi tudd Malick Diop je suis un professeur de PS mais sama option sport de combat la ak basket looloo tax dinaa sawar ci laaj bi nga ma laaj bisub tey bi feet la Jurbel ndax lan dekkal nañ cosaan lamb mënoo tudd Jurbel tuddoo ko ndax booy séeréer Ndiaye nekkoon na oh, champion de l'AOF AOF ak Afrique occidentale française AOF ak Afrique occidentale française donc doon benn pays rek groupe groupe groupe d'état la donc booy Séeréer Ndiaye euh, ñi ngi koy gërëm ci lim def looloo tax làmb bu ñëwee fii warta jaaxal kenn bon dégg ngeen Bombardier li mu wax yaayam fii la dëkk Toubé fii rek la ci ginnaaw. bombar bon bii booy xool euh, Abdou Diouf dañ ko kawoo à deux reprises premier kawoo bi. Forza exploité wu ko deuxième bi la ko dem jëli ji daan ko ci ginnaaw te nee nañ dans les textes toute action entamée dans l'enceinte et qui se termine derrière l'action est considérée comme une chute loolu te chute bi chute valable bon les furies de la lutte combat bi bettu leen Abdou Diouf ma Mandione dafa am foo xam dañ koo xaw a nuroo ñeme nañ mais bu ñu entraîné kaw lañuy am seen tànk yi day las ne généralement buñ xeexee gis ngeen Baye Mandione bi ko giri dóoree dafa daanu di jóg daanuwaat tey gis nga Abdou Diouf bi ñu ko touché dafa trébuché te am na yeneen mbër boo leen dañuy résister par exemple un Eumeu recevoir na kuy terrible ci groupe do mais encaissé na ko dem am Ama Baldé dem na ko contre Malick ñaa tey bi ko Abdou Diouf dafay encaissé ana mu dem na ce qui veut dire que mbër da ngay travailler train inférieur supérieur train inférieur bu faible. tu auras tous les problèmes du monde parce que actuellement dañ leen di fay ay million dañ am ay course de judo course de boxe course de lutte gréco-romaine ay même ay mystique euh, euh, léegi sa course am na loo xam bu la ko conseiller mu suivre vidéo sa adversaire facilement mu daan la Forza pour l'instant day taxaw xaar Forza tey mën na bëreeg la Lac de Guiers Lac de Guiers mun koo bañ mën na bëreeg un Baye Mandione mën na bëreeg keneen ku dul moom yaa ngi dégg tey attention Balla Gaye bu amee defet attention Balla Gaye su fekkee dafa am defet Gris Bordeaux tamit attention bu fekkee dafa am defet Boy Niang mii da koy laaj Sa da koy laaj làmb ji actuellement dafa rëb année électorale lañ jëm ñëpp xam nañ politiciens yi niñ mel ci sport parce que euh, liñ mën a am ci biir làmb pour ñu am ko ci beneen sport c'est pas facile maa ngi leen gërëm di leen sant di ñaanal. astafirlah astafirlah yuuxu jëm na fu mu jógee woon loxo dem na ci gémmiñ te tëbatul ceeb lamb ji amoon fii ci di diwaanu Diourbel diggante ki nga xam ne mooy Forza ak Abdou Diouf Forza forcé na ki nga xam ne mooy Abdou Diouf daan na ko jëli bu leer Bantamba yéen i kaay ubbi leen journal bi di ñu xamal ne Bantamba tey jii Forza. daan na ki xam ne moo di Abdou ci jël bu leer gannaaw bu ma ko dumee ko ziar ko ziar jaaj koy bàccal jaaj koy café mu daal di boobu noonu day def ko plaqué plaqué bu amul fenn la ko ngan di plaqué la ko moom Abdou moom Abdou Diouf ci boppam mu toll nii booye boobu mu dem fi xam ne moo di IPRES te xam ne daal day dem nga xam ne mooy retraite ay xam ne mooy Forza yóbbu na ko retraite retraite yóbbu Forza tey jii lamb mu bekku ak Mamadou Mbaye ndax lamb Forza la dëgg numéro 2 dina am bantamba lañ koy leeral. ñun Diourbel lañ dëkk déjà donc d'abord ñu ngi nuyu waa personnel lu 2STV yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu bépp bépp amateur Diourbel lañ ko ñëw Diourbel parce que ñun Diourbel lañ dëkk fii la ñu juddoo fii la ñu màggee donc avant ñu dem géej waaye fii lañ fii lañ juddoo fii la ñu màggee. fi lañ defee suñu primaire donc c' est important que ñun ñu ñëw tegee ko Diourbel delloo njukkal fi nga xam ne fi fa lañ dëkk suñu mbokk yëpp ngi fi donc moo tax ñu ñëw Diourbel pour tëgg fi bu delloo njukkal waa Diourbel. 2018 bi demagul fenn est-ce que euh, am nga mbébét baat pour ñëwaat fi nga xamante ne maanaam mooy si Diourbel. waaw non région yi nag peut bu ma dem ba jàll rek dëwoon incha allah mais saison bi moom euh, Diourbel tëgg nañ si ba pare beneen saison incha allah dina ñëw tëggaat Diourbel. nan ngay waajalee combat bi nga xamante ne moom mooy Eumeu waaw avant Eumeu Sène Bombardier déjà ñu ngi waajal euh, Sa Thiès Boy Niang di le onze mars te marraine d'honneur bi di premier dame di Marème Faye Sall nekk koo xam ne vraiment depuis lors mu ñuy jàpp